aouzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokkiñ bokkal liggéey sëriñ Touba bi muy Touba ca kanam ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke borom Touba di dikk nag ci liggéey bi nga xamante ni si moom la Touba ca kanam liggéey ci mois de juillet 2020 bi di jégglu képp koo xamante ni si yaa ngi yëngu ci Touba ca kanam ci yeexaayu vidéo bi li ko waral nag mooy jaayante bi fi sëñ bi sas Touba ca kanam ci diggante bi ñu nekkoon ci moo tax vidéo bi xaw a tardé ñu ngi koy di tuub ñu dikk ci versement yi commencé ko ci zone nationale Touba mois de juillet 45 millions 999 mille 750 Orange Money dièse 144 dièse 621 dièse million millions 311 mille 948 francs Mbacké ci Serigne Mama Fall 50 mille francs Dakar ci turu Baye Serigne Bousso ak El Ndaw 7 millions 40 mille 050 francs Mbar ci turu Soxna Ndak Sey mille francs Tamba Serigne Adama Niass un million Diourbel Soxna Ndey Ndiaye quinze mille francs Kédougou Serigne Modou Lo quatre cent mille quatre cent soixante mille francs Ngaay Soxna Maguette jiite cent mille francs Xombal Soxna Xuma Touré Serigne bay Faye galo Dieng deux cent trente-sept mille francs Thiès Serigne l'Islam Sall Soxna Maam Bousso Mbacké un million quatre cent soixante mille francs Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboup deux millions mille sept cent francs Daïra Babul Ayadi Agnam soixante Kébémer Serigne Gora Sill un million cent vingt-deux mille francs Kaolack Serigne Moustapha Touré un million huit cent deux mille francs Saint-Louis Serigne Rijal Seck Soxna ramafal Fall six cent vingt mille francs Goudiri Serigne Damba quatre cent quarante mille francs Joal Serigne Bassirou Thiaw 506 000 francs soxna May Mbakke 200 000 francs Jifeer Serigne Ousmane Ndiaye 130 000 francs Ross Béthio Serigne Aline Ñing Serigne Dame Souran 387 000 francs Akel Ndiawara Serigne Cheikh Anne 100 francs Weli Ngara Serigne Mbacke Gueye quatre-vingt-dix mille francs Touba Belel Soxna Soda Diop cinquante mille francs Fouta Mohamadou Fadal Dia cent cinquante mille francs Bokki Diawé Serigne Talla mille francs Daaru Muxti soxna Musli Mbakke mille francs Bustaan Jaw soxna Naar Jaw 145000 francs versement anonyme muy versement yi nga xamante ni si moo dugg ci kees gi te xamuñu ñu ko ci dugal xamu joxewuñ seen ay tur mi ngi nekk 2 millions 334 mille 717. Fouta Thiarène Serigne Mbacké Sène 250 mille francs Njàpp Ndal Soxna Abi Faye 19 mille francs ci njiitul Serigne Mor Souran million 130 mille francs CFA Tawa Ndiaye soxna Nogay Kebe cinquante mille francs Daaru Salaam Diouf Serigne Youssouf Thioune trois cent cinquante mille francs Mesere Serigne Mbacke Seck frais bancaires trente-huit mille quatre cent Serigne basiru Ndiaye cinquante mille francs Kafountine Serigne Njum Njëmb Njëmb Cissé deux cent mille francs Kolda Serigne Moussa Sène deux cent quinze mille francs Touba Ndiaye Mboro Serigne Abdou Thioune cent mille francs Ndioumane Mame Bousso Ngom vingt deux mille francs Koungheul Serigne Youssouf Souran mille francs jayante Askanu Rabb Daouda Mboup juin juillet Serigne Moussa Diouf un million cent cinquante mille francs bi ñu seetee li dugg ci suñu kees keesu tubaa ca kanam ci mois de juillet 2020 ci zone nationale mi ngi toll ci 87 millions 445 mille 165 87 millions 445 mille 165. biñ ñëwee ci éclair éclairage domestique muy làmp yi nga xam ne moom la fi tubaa ca kanam indi woon di ko jàpp ndale nit ñi. ñi ngi ci am un million six cent quatre-vingt-dix mille francs CFA ñu dem zone Asie ca Chine mbokki murid ya fa nekk am na jaayante buñ fi indi bu toll ci neuf cent ñu dem zone Amérique Canada sëriñ Pape Amar un million huit cent trente mille trois cents Mexique Serigne Daouda Diak deux mille francs Brésil Serigne Cheikh Ndiaye six cent soixante mille francs États-Unis Serigne Sohaibou Seck six millions deux cent dix-huit mille huit cent cinquante francs total zone Amérique nekk huit millions neuf cent mille cent cinquante francs ñu dem zone Europe Allemagne Abdou Salam Faye

369 mille 101 francs suñ boolee Europe gépp nekk 11 millions 332 mille 431 francs ñu dem zone Afrique Guinée Bissau Modou Atta Seck 825 mille francs Afrique du Sud Serigne Mor neuf cent vingt mille francs Gabon PAP 6 cinq cent mille sept cent francs total zone Afrique nekk deux millions deux mille sept cent bi ñu boolee total encaissement ci mois de juillet deux mille vingt ci biir réew ak bitim réew Touba ca kanam encaissé na ci million 112 millions 559 mille 446 francs 112 millions 559 mille 446 francs décaissement muy li nga xam ni moo génn ci gafak ak Touba ca kanam ci mois de juillet 2020 chantier Ndaam million cent 174 mille 232 francs chantier université million 4 millions 797 mille francs chantier Daaru Xadim 229 mille francs chantier Touba Ndiarème million millions 72 mille 667 francs chantier daara yi maanaam liggéey yi Touba ca kanam di jàppale daara yi nekk ci rëkk bi 3 millions 817 mille 250 francs ñëwee ci poste de santé Kër Gol nga xam ni pare woon na 5 millions 289 mille 750 francs yi ñu fa def équipement la ak post pharmacie bañ fa defar ñu daal di ñëw ci poste de santé Boguerel moom it yéen ñëpp xam nga ni pare woon na waa dañ ko doon équiper gën koo taaral ak poste de santé poste de pharmacie bañ def bañ fa def mu nekk 5 millions 11 mille 750 francs toilettes yi ci morgue bi ci kanamu jumaa ju mag ji biñ koy defaraat liggéey yooyu ñu fa yokk def nañ ci 192 500 francs communication commission communication 240 000 francs commission massification caravane yi ñu doon def ak yaatal ak yégle bi 858 750 francs charge fixe muy salaire yi nga xam ni ñiy yëngu ci Touba ci kanam ci administration bi ak chantier yi mi ngi toll ci 3 millions 957 mille 500 francs commission membre muy sachet yi ñu doon defarlu ak carte de membre yi ak bagage yu ko nuru 105 mille francs budget de fonctionnement muy 500 mille yi nga xam dañ koo teg ci bureau bi pour urgence yi ak yi ko nuru 500 mille francs li jëm ci ndoxum Tuubaa mi te ñëpp tegoon seen bët pompe yooyu fi Touba ca kanam jëndoon mu toll ci ñetti pompe dépensé woon nañ ci vingt huit millions de francs CFA commission environnement huit cent soixante quinze mille six cent francs commission logistique ci mai mois juillet deux mille vingt bi jënd nañ ci. pelle mécanique muy pelle boobu di tibb suuf si di ko def ci camion yi ci chantier yi ak benn camion vidage buy vider fosse yi ak ñaari camion ndox yu yóbbu ndox fi nga xam ni ndox mi egg gu fi tañ fas ko fa yéene egg yóbbu ak benn machine boo xam ni day mool ay pavé ak ay briques biñ dajalee loolu yépp mu nekk quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-cinq mu am benn ambulance boo xam ni waa Italie ñoo ko yónnee woon Touba ca kanam ci fray yi génnee dox bekk bi fay frais nañ ci six cent quatre mille francs mission leeral Touba muy làmp yi nga xam ni moom lañ fi indi woon ba dëkk bi leer nañ naññi Touba ci kanam da cee commandé waat trois mille làmp muy ñetti junniy làmp mu nekk million millions 500 mille francs li fi jot a génn ci keesu Touba ca kanam ci mois de juillet 2020 toll ci 240 millions 057 mille 511 francs li fi jot a dugg ci mois bi de juillet 2020 nekk 112 millions 559 mille

moo fi nekk. ñi ngi sant ñëpp ci turu Touba ca kanam di ñaan yàlla liggéey bi gën a yemb gën a yaatu gën a baax sëñ Mountakha wax na ko day gën a baax incha allah wasalaam.